asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 12 janvier 2021 dañu ñëw ak ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi du suñu lamb nag moom maanaam dafa xëy ñëw daal tey ci saison boo xam ne jàpp na ne fi mu nekk nii day la ko tëree tëj bariwul yëglikaay bi nag dafa xëy fësal Balla Gaye numéro 2 Modou Lo Eumeu Sène ba ci Ama Baldé dañu xamal ne daal juróomi weer moo dox suñu diggante saison bi tëj te boo bëggee dégg-dëgg ci biir juróomi weer yooyu maanaam mois d'avril ba mu nga ca ànd la nga xam ne nii moom moo di weeru koor ga mel ni kon daal Covid 19 ba moom moo fa jaar ba tey bu nu continuer yëglikaay bi nu xamal ne daal soo bëggee dégg-dëgg boo sàgganee saison bii moom maanaam la muy xeeñ mooy mu ñëw te kenn du ko bëre maanaam daal saison balance daal la yëglikaay bi jàpp ne boo sàgganee dana am ndax nag la ko waral lenn dul li nga xam ne nii corona ngir làmb ja meneen mbër moo xam ne nii tamit ay année balance yu mu daa mel topp na ko muy Gris Bordeaux yëg li bi ba ñëw ñu ne déet na waaye amul ñu ne déet na waaye itam at mi nga xam ne moom la ñu ne di atum ba tey 2020 jàpp 2021 ji yëg li kaay bi na ne Gris moom boo sàggane ab xaftaanam du ca tooy maanaam deesu ko tuusal muy bëre mu bëre ndax am na combat muy mbay mbay guy gi ba nekk école ba da jon ginnaaw ba maam Balla génnee fan yële passé di mu war a bëreel xamal ko ne daal arbitre soufflé mu bëreeg moom daan ko wëri leneen lay wër mbay ne ko da ngay caaxaan ndax loolu nga wax manoo ko bés bu arbitre soufflé sama diggante ak yow fu ma jàpp ci yow moom mooy daan naa la loolu la ko mbay guy gi xëy tey tontu mel ni kon daal loolof di wax moo ca nekk tontu du ma sa forox ñeneen xale yoo xam ne nii moom relève la ñu war a mën a doon ëllëg ci seen ab écrit yëglikaay bi ñëw na ci ñoom muy xale ya nga xam ne ñu nga nekk ca parcelle mbooloo bokk ne ni mu nga parcelle Mboro Elton Elton Junior ak far Farou Jar kaay bi jàpp ne ne daal soo bëggee dégg dëgg daa mel ni daal ñoom ñii daal war nañoo mën a nekk ëllëg relève fu fa nga xam ne nii moom moo di parcelle mbooloo kii moom daa xëy am lu ko naqari ba di ko wax muy Omar Diagne Omes Omes nag moom la mu xam ne daal nee na amul kenn ku war a man a def lamb fii ci réew mi nga di ko waxtaane wala nga sa ko nocci génne ma ca nee ko def itam da ngaa def la la neex waaye moom tolluwaayam ci réew mi ak ci lamb moom lu fi waaye di nas lu ne ci lamb war na caa mën a bokk Omes Diagne daal la ko naqari nag nee na Matar Ba gis na ne bi mu waree fal ka nga xam ne moo di bira seen wala CNG bu bees bi képp ku bokk ci lamb laaj na la sa xalaat dalal la Omes nag nee na Matar Ba dalalu ma tey suba waxi nopp tontu waaye daa jàpp ne kon daal moom Matar ba di ministre ba la mu def mooy njuumte ndax omes jàpp na ne daal ay waxam moom leer na ne ku fi waxtaane lamb te boole woo ma ca da def la la neex waaye la la war defoo ko kii moom boole nañ ko ba xëy dénk ko ay ndomb muy ka nga xam ne ni moom moo di njagam may sa njaay moom nag léegi wàllu marketing ak communication ak yu mel ne ki noonu école de Fallaye moom lañ ko fa dénk moom nag la mu fas yéene na li am ba mooy dina fexe ba xam ne ni daal moom mooy ay sponsor ak ay partenaires yoo xam ne dana ko xëj andi ko fa nga xam ne moom moom moo di ca école ba yëglikaay ba moo xëy tey seq ak moom la nga xam ne moo di waxtaan keneen koo xam ne nii ñëw na wala boog mu indi ay nit muy bàmba mbub ma nga xam ne daal formation mbër yi nga xam ne mu ngi koy def bopp ba tey daal daa mel ni mu nga ciy continuer démb nag ca Parcelles Assainies daal dajale woon na fa toll ci ñaar fukki mbër yoo xam ne ni daal fi mu nekk nii noom commencé nañu ñu di leen former ngir nag ëllëg ñu mën a am seen métier di dem maanaam di liggéeyal seen bopp ku mel ni maam Mor moom ma nekk les tigres xëy na tey wax ci lu mel noonu jàpp na ne daal mbër mu ne war nga mën a am nag la nga xam ne nii moom moo di sa métier bu nu fa jogee dañuy dem record record nag moom daa xëy tey saytul ñu école de Fallaye Balde ci juróomi at yi nga xam ne moom moom la ñu génnee waaye nag mbir daal daa mel ni neexul lool lool ndax nag yëglikaay bi jàpp na ne 39 victoire la ñu dajale 46 défaites yëglikaay bi ne na daal soo bëggee dégg-dégg moom école de Fallaye Balde ah loo ci mën a dégg daal mbir na mu waroon a neexe neexewu ne Abou Ndour moo xëy tey gëstu loolu mel ni ki nag Xaarim Sarr Fallaye Balde numéro 2 moom maanaam ñooñu moom daa mel ni des dañoo réer ci circulation bi maanaam daal kenn gisatu leen ci lamb ji ka ñu gis ci lamb ji moom wala boog rëg-rëg mu am nag ab combat boo xam ne war na koo bëre le 22 janvier bi nga xam ne ni ca la ñu jëm mel ni ki nag rëg-rëg moom ka muy dajel doomi Cameroun la ñu koy wax Alain ni rëg-rëg loolu lay def kon hélas ma ñaan rëg-rëg rek ndax nag MMA boobu muy jongante yàlla na ko ci yàlla may ndam lu sedd guy guy guy guy hélas waaye hélas sedd bi metti na fi mu nekk nii célibataire yi yërëm naa leen rawatina yu góor yi wala yu jigéen yi yow nag marié nga xulle moom yoru dara Ami Diouf tamit daa mel ni ci ponkali célibataire yi la bokk asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateurs yi ñu suivre ci Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar waa tey nag droit au la OM du mën a ñàkk olympique de marseille xam boo demee france marseille laa fay supporter waaye nag benn club laa am club de muy Real de Madrid le meilleur club du monde loolu la yàlla dogal ndax te des ligue des rek dafa doy sans compter la ca des waaye nag maa ngi supporteru marseille yépp rawatina ku mel ni Cartouche le grand champion moom mu ngi foofu ci Marseille ak bépp sénégalais bu nekk à l'étranger rawatina ñu nekk fa nga xam ne mooy ca Marseille Amdi Moustapha nag bu passé la seeni moom moo génne fii tey boroom ngénte lu neex li macha allah moom ma jox mayo OM bi koy nuyu di ko ziar ñaanal jàmm di nuyu yëpp ñi nga xam ne ay soppe lañu waa tey nag bu ñëwee saison blanche ah boo sàgganee daal mu ngay xeeñ ndax juróomi weer moo tere saison bi tëj te mois d'avril lañ ci biir ànd ak weeru koor wa mel ni kon daal li dox suñu diggante ak saison bi tëj moom bareetul te ba tey gars yi demaguñu céng dikk guñu mbay laar xamaguñu fu ñuy féete bëree amagul lu leer amagul te boo xoolee ne discipline yépp ñu ngay dox ah loolu nag fi mu nekk nii moom yaakaar naa ne kenn la wala ministre des sports ak ka nga xam ne moo ko fa teg muy monsieur le président de la république mi ñu fal defe naa ñoom nag fi mu nekk nii ah war ñooñu war a ñu firi ñu ndax mbir mi mu ngi bëgg a waaw tey affaire yi moom lu ñuy gën a dem rek temps bi di gën a jeex ah kon nag xëy na d'ici quelque temps wala quelques jours xëy na du ñaa ngi jëlay décision xool nu ñu def def pour ubbi làmb ji pour gars yi mën wàcc si géew bi bëri mais moom dina am sens trop yëglikaay bi xëy na ci lu mel ni ki noonu ba xam ne muy Gris Bordeaux ay année bi ñëw na ci yoo xam ne mu itam boo sàgganee ren ji moom ah même bu pay-per-view ak lépp amee itam moom boo sàgganee mën naa bañ a bëre parce que yëglikaay bi ñëw na tey ci jàngatu Gris Bordeaux moom nga xam ne nii 2020 jàpp 2021 mën na cee ami jafe-jafe ngir bañ a am na par la suite ay jafe-jafe am na ba combat bi mujjee yàqu ba Balla jël Bombardier waaye li ñuy ñaan rek mooy mbër mu ci ne rek yàlla na nga am adversaire pour mën a bëre parce que tamit loolu mooy seen gagne-pain ñoom mbër ñoom mbër yëpp lañ koy ñaanal di ñaanal promoteur yi leen tëgg tamit yàlla da jox lu ñu leen di mën a tëgg keneen koo xam ne moom dafa xëy di tontu muy mbay guy gi ndax xam nga maam Balla ginoon na ci fan yi maam Balla numéro di ah bis bu muy arbitre soufflé moom la ma gis mooy daan la wuri leneen mbay nag nee na ko loolu mënta ne ndax mu la jàppee dama lay daan muy combat boo xam ne combat bu nar a neex la ndax Mame Balla ku ne xam na ko ci technicité bëreem mën a bëre macha allah ndax dem na bañ koy waree borom borom top 5 te li ko waral muy mën a bëre ak jëll yu mu doon daan yu rëy rëy mbay guy gi nag daa nekk xale boo xam ne nii moom ah macha allah fi mu nekk nii daal ni muy doxale ci lamb ba ko ci mbër parce que am na tempérament lamb bu arbitre soufflé dana uti li mu bëgg te itam du caaxaan te loolu defe naa xale bu ci nekkee waras na ko mën a xalaatal ëllëg mu nekk dara ci làmp boo xoolee depuis mu jógee ci defetam su suma juumale ak laay gote yaakaar naa boobu ba tey mbay ci euh, tracé bu aw yoon la nekk loolu nag li ko waral mooy xëy na liggéey bu muy def mu sérieux ca lool ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi ñëw na ci par seen mbooloo ñoo xam ne jàpp nañ ne ëllëg mën nañ nekk ñoo war a nekk relève ba Odi ngaa ca la bokk Farou Jar ak Elton Junior ah loolu nag mooy làmb parce que écrit bu mu mën a doon fuñ ci moo xam écrit yi fi newoon ak yi fi bu yàggu lépp ku xalaatoo xanaa ëllëg formé ñoo xam ne ñeen lay doon rek xalaat nga maanaam ñu ci dem ñi ci des ñëw taxaw seen ginnaaw ngir nag fas leen ne jël place parce que ku ne xam ne ne dóor dóoraat wala boog parcelle mbooloo ñoom Moussa ñoo ko sancoon di ca bëree mais Moussa Dioum xëy na gis nañ ko gis ci làmb lu mu bëri te rewul écrit baa ngay dox ay mbërë nga fa kon xale itam ci lañ bokk waaw ñu leen wax rek ah liggéey bi moom amul secret ku ko gën fonk la rek waaw OMS moom daa xëy di ñaxtu nee na ah zappe bañ ko zappe daal ci la xam ne ni moom mooy consultation yi Matar ba doon def waa làmb te boolewu ko ci daal moo ko naqari xam la mu xam le na a xew xam naa ne na làmb parce que itam am na lu mu ci jot a def ndax xam ku ne xam na àndam ak tafaatin sans compter côté yeneen ya ca des yam ciy yëngatu waaye nag xëy na li olof di wax rek ndax nu dajul suuf laa foog waaye yaakaaru Matar ba xëy na xeeb ko wala nangam mooy tax mu bañ ko ko parce que itam fooguma lool xëy na nag xel day fattu te bët olof ne la koy fatt des fois du ko gis waaye comme ñu ngi fi làmb jaa ngi fi ministre baa ngi fi defe naa yëpp mën nañ ko rattraper waxtaanaat pour mbir yi gën a jaar yoon Fallaye Balde moom mooy sarse wu marketing baak yu mel ni ki noonu waaw moom daal la ñu jox lu mel ni ki noonu mel ni ki la mu fas yéene daal ca école ba wax na ko fexe ba sponsor yi ñëw am ay partenaire école bi defe naa loolu tam dina am solo maanaam ñu fexe ba école bu ne wala écrit bu ne am ku koy jàppale ci wàllum finance maanaam sponsor wala partenaire loolu defe naa ne njaga kon ñu ngi lay ñaanal sa mission boobu nga réussir ko loolu ama am solo la mu mel ni buñ fa jógee dem record école booba njaga yore nag wala écriam boobee moom daa mel ni at yi ñu génnee di juróomi at ni ñu ko record waxee cinq ans yi daal boo xoolee 39 victoire la ñu am 46 défaite mel ni ki nag ak ay année balance boo xoolee daal ah kon loolu dese naa dox waaw mais nag liggéey rek parce que itam mbir mi moom boo boo demee dem ba affaire yi dëgg da ngay liggéey rek gën a foncé na bu yàggee mën nga gis yoon wi école Fallaye Balde di école boo xam ne tamit vraiment ñu ngi marqué seen empreinte ci làmb bu baax a baax ndax kuñ ne Ama Balde foofu la yeewoo ba pare war a bëri roi des arènes defe naa kon ñu nga ñaanal yàlla digganteem ak Alain ah Ngalani waaw Alain Ngalani di doomu Cameroun ñu ngi ñaanal ma si xam ay Cheikh gaa yëpp ñoom ñëpp ay Daawur gaa yooyu muy àndal wax ne daal rek rek ñu ngi ko ñaanal yàlla mu gagné combat boobu nga xam ne moom lay jongante waaye di kontaan ci ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi ñuy fu ñu mën a nekk si àddina bi rek di leen ñaanal jàmm di balu ñëpp ak waa di nuyu tamit di tey di jaale ñoo xam ne askanu Sénégal mais rawatina waa Réfan waa Réfan maa leen di jaale ki nga xam ne moom mooy oustaz Faye ñu gënoon waa oustaz Abdou Faye Serigne Abdou Faye ñu gënoon xam xam ne dëgg yàlla nitu yàlla la woon pire bu daan ci di leen ñaanal di taxaw ci seeni soxla ci am faj ak lépp lu mu mën a doon defe naa demoon na ba këram ba fu ñëwati woon defe naa nit ña fa la fanaanaka fanaan ak yendu ngir lan ngir bëgg koo gis ci lan ngir dimbali bu mu leen doon dimbali waaye nag yàlla moom looy baax baax moo la gën a baax te am nañ ci moom yàqin ndax nitu yërmande la nitu mu daan taxaw nit ñi la wax dëgg yàlla te itam mën nañoo seere ci moom kani ndax bi nit wax na ma ko benn dëkk bi ñuy wax Mbombay juma bu ñu fa doon tabax bañ fay tabax pareegul mu yëkkati alal ju bëri dugal ci ba mu cey njëkk ñëw ci lañ ma wax yëkkati na un million def ko ca te bëri na yoo xam ne def na yu mel noonu defe naa kon kooku ku bu génne àddina mën na am si moom yàqin yàlla na ko yàlla jéggal xaare ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye tamit di jaal ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di waa Tiwaawan ndax yaakaar naa am na kilifa diina gu fa wàcc liggéey ñu koy jaale képp koo xam ne ni daal askanu Sénégal nga waaye wala nga bokk tamit ci askanu li nga xam ne nii moom mooy famille si ba nga xam ne moom mooy famille maam Alaaji Malik ba nekk fa nga xam ne moom mooy ca Tiwaawoon waaw kooku ñu ngi koy wax ah Serigne waa doomu Seydi Jamil la waaw koy ñaanal yàlla rek yàlla na yàlla jégal ko xare ko aljan di koo xam ne ni daal ab jullit nga rawatina suñ mbokku Tijaan yi xulle di la nuyu di la ziar di wax ne biir bi mbaa na xulle nag xamalu lay dimbali il faut nga jéem a kii rek uti soxna looloo lay dimbali ami mais tamit yàlla na ko yàlla may borom kër defe naa gan la gan gu ñëw ci kër amoo borom kër ñu ñaanal la borom kër defe naa amin rek nga ci war a mën a wax ah kon amin ami yàlla na yàlla def jàmm xule